lii nga xam nag mooy xew-xew bi nga xam ne moo xew ci réew mi euh, Cheikh Mountakha la nga xam ne moom la moo cay rôlam ba mu ko yëgee ba tey ma nga ca mooy ñaan sunu boroom loolo te itam wax na ko waxin woo xam ne nii ku yebbu xel dal ndax am na sax yuñ ko doon ki waaye nam ko gisee ak nam ca doyle sunu borom ak nam xamee ne sunu borom mi ko feen li dina ko fi jëliwaat ci jenn lor man caa bañ caa taxaw loolu doy na sëkk ñëpp xam nañ ne démb la doon jàngaloo ci senegal gépp dañ doon jàngee alquran ab jullit ñaan rek la am loo tax Cheikh taxaat déglu na ne dégle na ñëpp ñaan ci réew mi ni mu ko daan déglee naka jekk waaye moom ci boppam xam na yëf yi xam na itam fi mu toll mi ngi ciy ñaan ñaan goo xam ne jàpp nan ne gëm nan ne sunu borom dana ko ko nangul loolu itam ku yobbu ak lu metti metti delloo ko ci suñu borom te xam ne suñu borom a ko def moom mi ko def mën na koo dindi ci nu gën a gaawee lu foofu la Cheikh Mountakha nekk te gëm na ne gëm moom ci boppam gëm na ne suñu borom dana ko teggil dana ko teggi ci nam li nga xam ni la ko fay nii dina la koy teggee kon nag loolu mën naa dal suñu xel kenn ku ne nag xam loolu waaye xam na itam ab jullit amul lu dul ñaan te Cheikh Mountakha moo jiite ñaan bi